booru mairie bi euh, ñu gis euh, seen taxawaay ak euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko rawatina concernant li nga xam ne mooy actualité politique beeg législative yi décision bi nga xam ne conseil constitutionnel rendre na ko wane nga clairement sa position par rapport ak décision yi ne d'accord ci lan moo ko waral c'est vrai que waxoon nga ci mais yaataloo ko tey am nga occasion la yaatal ko wax ñu ñuy seetaan lu ko waral jërëjëf euh, décision conseil constitutionnel bi li ma ci wax leer na naññi. Mhm. c'est-à-dire ñi ma àndal ci Benno Bokk Yaakaar comme que ñoom dañu nekk parti au pouvoir te xëy na du rafet ci ñoom ñu mel ni ñuy diingal institution yi. Mhm. wante man dama sumi mbubb moomu teg na sul sama mbubb homme politique. wax ni décision bi d'accord ma ci parce que pour man le droit n'a pas été lu ils n'ont pas les sages n'ont pas lu le droit. Hmm. parce que tey bu ko defee. nee naa mu ngi ubbi jurisprudence boo xam ni ëllëg nit dina def lu ko neex ne jurisprudence atum 2012 deux bi ñu tollee nii la ñu doxalee loi bi dafa leer dafa ne une liste qui n'est pas paritaire est irrecevable point donc la liste n'est pas paritaire c'est irrecevable ñoom dem nañu sax ba nangu ko seen biir bay tamante dem seen biir ba génn ci seen xel donc tey boo dellusee ni liste liste boobu nga xam ni irrecevable may nañ ko possibilité mu remplacer yaa ngi indi jiixi jaaxa parce que remplacer mooy la nan la ñuy déggee remplacer remplacer mooy parce que ñoom dañu ne am na ñu démission dañu leen di remplacer mais bu fekkee dañ koo jaarale ci texte yi boo remplacer góor góor nga fay delloo boo remplacer jigéen jigéen nga fay delloo te yow leer na ni liste bi cinq góor la ak ñaari jigéen tey góor ñi dina ñaari góor la. mu leer la ne tamit da leen nar a sonal parce que boo remplacé ñaari góor yi delloo ci ñaari góor la liste devient irrecevable kon pourquoi tey ñu fi indi beneen problème parce que tey bu ñu leen remplacé ci ni mu leen neexee ñoom dugal góor ak jigéen nga yegg mbir mi antuwul yaa fi indi problème parce que yow yaa gën a xam ni góor góor a koy remplacé jigéen jigéen a koy remplacé nga leen dem leen ngeen remplacé ñoom ñu dem remplacé ñu leen ñu indi góor ak jigéen léegi indi nga benn problème boo xam ne dafa leen jural Sénégal coow. man je pense que loolu moo ne dès le départ laa ne man d' accord ma ci comme que ñoom ñëpp xam na ne ku déposé wu liste bu baax du ñu la jël. Hmm. liste bi baaxul ba ñoom nangoo nañ ko bay tamante dem pourquoi ñu indiwaat fi problème boobu. d' accord alors te tamit yaakaar naa ni dafa clair tamit. oui texte yu clair la ñu yor. Euh, li nga bañal ñeneen ñi mënoo ko nangul kenn parce que boo gisee ma ñeme koo wax. Hmm. léeg-léeg ñu naan mbaa du dil léeg-léeg mbaa dañu bëgg a jàllale li su Benno Bokk Yaakaar li su Benno Bokk Yaakaar mënoo fexe ba doo ko jàllale. ndax ah, c'est boobu amul anomalie. déedéet erreur la la est paritaire. oui on parle de de de de bi problème bi mu ngi ci parrainage bi. non parrainage bi amul problème parce que nit ñi li ñu leerlu mooy élection locale administration territoriale moo koy organiser. Mhm. loolu moo tax tey sous préfet bu ne c'est irrecevable ñoom ñu dem cour suprême yaa ngi nag rappelé wu loolu. oui bien sûr parce que loolu c'est les préfets les sous préfets élection territoriale ñoom ñoo gérer loolu. Mm-hmm. élection présidentielle parrainage bi conseil constitutionnel moo ko gérer. Mm-hmm. mais bu dee élection législative c'est le ministre de chargé des élections moo ne texte yi mooy ministre de l'intérieur. donc moom élection bu ñu toll mooy génn arrêté am ne nii laa ko bëggee te arrêté bi ministre bi génnee dafa ni nii laa ko bëggee nii lay tëddee bu matul. baaxul mais bu ëppee lañ ci soxla lañ ciy jël bu ñu bu ñu demee ba jël la ñu des amul ñu solo seen nul et non avenu. mais est-ce que est-ce que code électoral kii loolu wax aussi la loi. loi bi dafa ni la élection bu ne buñ ci tolloo. Mhm. ki koy organiser dina wu. moo tax am na jurisprudence yoo xam ne boo koy def pour nax ñin ñi la. Mhm. parce que mënoo jël jurisprudence élection présidentielle indi ko ci réalité élection locale wala élection législative élection bu nekk am nga ku koy organiser am na maître d'œuvre. Mhm. élection territoriale bi kii administration teritoriale moo koy organiser. Mhm. moo tax bii passé yaa ngi dégg la les sous préfet invalide liste yu bari Sénégal ñu dem cour suprême ñu nangu yi bañ ñëleeg. liste Bougane Gueye Dany maa ne kon mandataire bi mais bi ñu yeggee est-ce que cour suprême moo ko invalidé c'est le préfet de Dakar. Mhm. moo ñu duma ko jël te pourtant boobu génn ñu préfecture bi dañ koo déposé moom ay manquement avant ñuy jóg ñu ñu ko ñu bëgg koo corriger sur le champ mu bañ. liste bi foofu la doxee tab bi dem géej. Mhm. moo tax boo defee lii da ngay kon ne nga def ko ñu dem ba cour suprême cour suprême bañal ñu loolu ñu li su li préfet bi def mooy yenn maanaam bi ngeen di déposé li ngeen di déposé baaxul. Mhm. mooy tuddee woon koo corrigé. te pourtant boobu mën nañu ñoo may ñu corrigé ko mais dañu ne waa loolu la wax kon boo demee ci loolu nga dem ba ci kanam kii tey indi li nga xam ne baaxul parce que da ngay jël code électoral indi loi sur la parité. ñaar yëpp ngay boole loi sur la parité moom dafa leer naan daf ne lépp loo xam ne liste élective la dangay jël góor teg ci jigéen. Hmm. moo am parité liste Benno Bokk Yaakaar bi ma lay wax waxuñu la li ci am yëpp dañ laa tuddal ñaari jigéen ñi tegloo. Hmm. mais tuddaluñ ne ñaari góor yi tegloo ci kaw. Hmm. liste bi nombre de femmes égal nombre d'hommes dafa am foo xam ni ñaari góor ñoo fa tegloo loolu mooy indi ci suuf ñaari jigéen tegloo. mais nombre de femmes yi nekk kilisi bi ak nombre de kii am na parité ñoo tolloo mais problème mu disposition la am. ordonnancement bi. ordonnancement bi. Hmm. moo am problème kon tey erreur matérielle lañ ko tuddee ndax doo indi élément bu base da ngay wàccee kii yéegal kii. donc loolu erreur matérielle kese la. Hmm. d' accord alors euh, beneen bi mooy euh, concernant euh, ba tey ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko gis nañu menaces yi nga xam ne pratiquement ñu ngi ko doon sentir si sa discours. comme si genre nationalisme dakarois euh, ni ku bokkul Dakar dafay euh, warul ñëw bëgguñu xañ suñu jàmm est-ce que discours boobu noonu mën na contribuer à l'apaisement Euh, de l'atmosphère politique ak jamono ji nu mu tàngee quoi qu'on dise il y a une certaine violence politique parce que bu opposition génnee fii euh, pouvoir ñëw génn fee tontunte lay nekk man sama wax dafa leer man bi may wax tudduma opposition tudduma pouvoir dama ne ñun ay élus locaux la ñu. Mhm. lépp ñaar fukki at nii ñu jël suñuy budget jël suñu su di ko fanaanal di ko yendul di liggéey Ndakaaru. Mhm. duñu nangu ko même bu dul Ousmane Sonko duñu nangu keneen dañu ko yàqal ñaata millions la ñu ci pavage boulevard général de Gaulle bi te yooyu bu amee ñuy wekki pavé xeer yi di ko toje oto yi di ko sànnante. Mhm. ñaata millions lañ foofu laay waxee de man dama ne na nekk sax Macky Sall même bu doon Macky Sall duñ ko ko may. parce que pourquoi Dakar ñuy sacrifier suñu budget ay at i at di confectionner ay pavé di defar trottoir defar nangam. ci benn bis politique tax ko fa mën di féete mooy ci Macky di ci Sonko duñ ko may kenn duñu liggéey ay at i at suñu budget xañ ko suñu bopp. n'est-ce pas jëndewuñ ko ceeb jëndewuñ ko suukar defaree ko dëkk bi tey ngay daaneel ay poto lampe di toj ay làmp di toj ay bus n'est-ce pas di wekki pavé yi di daj ay supermarché. am na loo xam ne ay taabalu jàmbur yoo xam ne góorgóorlu yee ko moom sax ñu sàcc la fa nekk agressé leen daw loolu nga foog ñu rafet na tey bi émeutes yooyu passé am na lu bari lu mu yàqal Dakar am na ñu bari ñu amaatu liggéey ndax tey am na boutique ya ñu daaj yi sénégalais ya fa daan liggéey tey boutique boobu reprendre gul ba léegi band yañ jëloon am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi ba nëgë ni est-ce que ñeneen ci dugaloon tey dem ñu jëloon ñeen avocat ña tey perte nañu daan dimbalee seen yaay ki leen ko santoon jël loolu di ko jox seen yaay foofu lay waxee daf ci am loo xam et puis ragaluma li may wax nee nañu doole ji nga yóbbu ca pénc ma ca kër gi nga koy jëlee pourquoi Dakar la ñu war a yàq pourquoi bu yàq jotee Dakar kese lay doon loolu laay wax. ah lépp fii da lay xewee. waaw dama no bu dee lépp fi lay xewee nañoo wut si meeru Dakar. Hmm. mais bu baaxee nga dem wuti meeru Ziguinchor wala meeru Linguère. Hmm. bu yàq jotee ngeen ñëw Dakar loolu mooy ndeyu lan bu li ngay woote bu dee dëgg la ci yow njëkkee ko sa dëkk. Hmm. sa poto lampe yàqu ñu xam ne pot lampe nga jëndoon yàqu pavage ya nga defoon ak aménagement ya nga defoon bu ko sa waa dëkk yàqee ci ngay doog a xam yoon moom mooy meeru Ziguinchor tey bu wootee loolu ñu yàq la mu liggéeyoon ci lay doog a xam méttitu xol boo liggéey ñu yàq ko nan lay méttee ci xol moo tax may nañ njëkkee ñoom fa ñu nekk maire bis bu ñu ko yàqee guddi googu seen ragoon day wadd ndax ay fan la ñu liggéeyoon la ñu ko yàq ci benn ngoon moo tax ma ne ñun élus locaux koy laa wax hmm. du ñu nangu la ñuy liggéey vingt ans am waaju am lu ko naqari parce que loolu dootuñu ko nangu yow nga tëju si salon de massage def lu la neex su ma ko def lu la neex génn nañ ma tojal mbedd mi nañ ma ko yàqal tey tamit nga def ci lu la neex def seen toj-toj ba mu neex la nga génne. mais mais oh, monsieur le maire concernant ce sujet dañuy dégg souvent ngeen wax salon de massage salon de massage pourtant justice mu ngi ci mbir mi di def enquête am di mener instruction bi et cetera mais dafa mel ni yéen politique yi jugé ngeen waa ji ba pare. taxawaay boobu lu ko mën expliquer. non man toppatoo ma loolu gis nga man justice na def liggéeyam mais du tee ñun ñu politique. man actualité nga ma wax moom laa la tontu. oui dama ni la. ci li ñu dégg la ñu wax. Mhm. dañ koo convoqué moo dem tribunal mu moom askan bi yëpp mu yàq dëkk bi man foofu rek laa waxee. Mhm. bu yeggee nag foofu yoon dina def liggéeyam. Mhm. mais ku man suñ ma woon tribunal dama jël sama oto jàpp dem tribunal lan mooy ndeyu kuñ fi woo tribunal nga ne askan bi yëpp yeewu leen bu kenn liggéey nañ fees mbedd mi ah mais tribunal mën laa defoo dara di. man de bu dee maay juge nga ne nañ ma gunge na askan bi yëpp génn damay jàpp ne yaa ko def kon mais man buñ ma jiinee lu ma deful mais du ma ànd ak kenn du ma sutura sax laay ko yëg yow est ce que bu ñu la woon tribunal da ngay woo àdduna bi yëpp hmm. parce que ñoom position politique bi ñu amee amee militant moo tax ñu woo àdduna bi yëpp dañ ciy profité maanaam ah bien sûr wax dama la bien mais li fi yàqu ci Sénégal ñaata milliards la man laaj naa Auchan keroog ñaata la yàqule mais ay milliards la ma wax kenn du ko fay am na ñu amoon ay boutique ak ay ay cantine ci mbedd mi yëpp lañu ñu daaneel lakk ko di ci ay pneu hmm. am na oto yoo xam ne toj nañu pare-brise yi boobu léegi seen borom kenn fayu leen mais pourquoi Dakar kese te xam nga boo gisee may kaas parce que Médina mooy xolu Ndakaaru hmm. tey bu nee nañ jël 200 millions dem Palais mais munoo dem Palais jaaroo Médina kuy dem Dakar Médina nga jaar par force parce que boo jaarul autoroute hmm. yaa ngi jaar Centenaire rue 22 Blaise Diagne rue 6 mbaa Corniche foofu rek nga mën a jaar kon sama commune foog nga jaar fi sama commune la nit dootul jaar sama bakkan ngay jaar pour jaar fi. Hmm. d' accord alors euh, position yi également euh, gis nañu euh, actuellement yaa ngi benn Bokk Yaakaar euh, ci coalition bi euh, attaques yi nga xam ne dañ koy nemmeeku particulièrement concernant l' opposition et le principal opposant je vais pas dire principal mais celui qui s'illustre le mieux muy Ousmane Sonko. dañu gis ne chaque fois yaay nekk de devant li nga wax sànq la mooy sa liberté bi nga am la walla euh, dañ la jiital pour nga koy def. man man passé naa fu ñu may jiitalee. Mhm. man su ma duggul ci leen dugg dugguma ci mais fu ma mës a dugg gis ngeen sama taxawaay. Mhm. bi ñu fee xeex ak Karim Wade bàyyi luñ ko ko fi lañ ko fekk mosquée Omarienne fekk ko sax ba Saint-Lazare fekk ko feneen. Mhm. jamonoy Wade bi ñu def benn sigil senegal bi fi Macky Sall di fa la ma fekk. man yaakaar naa ni même tey n'est-ce lu baree baree bare bari ci jamonoy Wade bi ñuy xeex ak moom dama daan jiitu loolu yàgg naa ko boobu du tey kon du ma li nga xam ni moom laa nekk Benno Bokk Yaakaar aussi su ma gëmee ba nekk ci damay dox sama waru kër ba mu mat sëkk man du ma tricher. Hmm. su ma àndul ak yow ànduma ak yow mais li may bañ mooy di militer nit di la jox sa kàddu di séddoo ak yow comme li li di bari loolu la de dugg ci coalition pour séddoo kese la de. man su ma bokkee bokk naa mais su ma bokkul bokk ko te lu ma gëmul duma ko def. sincérité ngay demee man a. ba jeex tàkk. Hmm. lu ma gëmul duma ko def lii nag. Hmm. dafa yomb. dans le jeu démocratique c'est facile jeu démocratique mooy convaincre diw diw convaincre diw ñu xaalal làng gi élection yi teg urne bi ku ne ku neex votel nit ku gagné nga dem mais pourquoi yàq dëkk bi war cee bokk man dama jàpp ne dëkk dëkk boo ko bëggee jiite waroo ko yàq dama yaakaar ni. dama dégle benn vidéo Ousmane Sonko. Mhm. mu naan xale yi bu leen politiciens yi génne ci mbedd mi kuñ ci gaañ yaay ñàkk sa ndeyee ñàkk sa bàyyee ñàkk. il y waaw. Mhm. mu dellu si waat léegi ne xale yi génne leen ma tojal ma dëkk bi mais ban façon nit laay waxal dëkk boo ko bëggee nga da koo bëgg a yor boo ko yàqee bis boo ko jotee doo fekk dëkk. Mhm. au lieu nga dool yi la nga fi yàqoon ngay defaraat. moo tax dëkk bi nag dafa am ñoo xam ne avant Ousmane Sonko di politique man depuis 96 maa ngi ci mairie yi. avant Ousmane Sonko di politique dañoo commencé jël suñu àdduna bi yëpp def ko ci maire yi di liggéeyal Ndakaaru kon pourquoi benn politicien jógee fële moom bu amul li mu bëgg rek dëkk bi daa war a yàqu mais tegu ko fenn. ay góor la ñuy góor bu ñëwee fii dañ koy defante ba mu mat sëkk te waa Dakar dañu bii passé de daf ñu bettoon ba pare am foo xam ne dañ ci àndoon ak moom. muy lan. non dama la Sadio moment boobu ñun boobu ñu on était dans l'opposition ñu bàyyi noonu mu jàll. Hmm. mais il commence en di ci abusé wu lu bari léegi nag bii nag moom déjà yaa ngi gis conseil constitutionnel jox leen dëgg pourquoi yàqul dëkk bi mais tey bu ñu la joxee bu ñu la jox defalee li nga bëgg nga ni baax na te avant lu mu doon wax les faux sages les sages de merde lu ne dégg nañ ko fi saaga sage yi tey sage yi wax ci sa faveur kenn déggoo nga ne waa kon baax na lii moo mën a nekk parce que déggoo nañu sax naan bu benn bu yeewi bokkul élection du am tey ñu def li nga bëgg nga ni cell bu ñu deful li nga bëgg na dëkk bi toj. mais attention bu ñëpp defee noonu dëkk kañ la fi am léegi bu waa pouvoir bi ne woon sage yi bu ñu joxee faveur yeewi dëkk bi toj bu ku ne menacé dëkk bi dëkk bi du baax. mais moo tax ma ne tey tey tey justice ak euh, ak ak ak police ak gendarmerie dañu war a def seen liggéey ndaxte man ami collègue bi doon woy mos na fi wax leen ci ay ay vidéo ñu gàdd yóbbu. n'est-ce pas. Barthélémy Dias mu naa def benn émission Dakar Actu wax wax ju dépassé gendarmerie ko fa jëlee boo ko Serigne Diagne kon tey bu defee appel à l'insurrection dañ ko war a tekki yoon dëkk bi benn dëkk la mais mënoo kon ne da nga bëgg a nekk chef de l'État chaque fois ngay défier institution yi saaga saag yi fii waxul la neex police boo jógee fii comment nga euh, euh, naan way man euh, duma ma signé ji demuma dem signé wu ma dara n'est-ce pas du ma dem di signé n'est-ce bu ñu la placé n'est-ce pas sous contrôle judiciaire nga war a dem signé ji mais dafa dafa jaadu bu jotee nga jot dana la bon exemple ndax yaa bëgg a yor réew mi ëllëg ëllëg boo yoree réew mi gérer pouvoir yëpp ab benn citoyen ne duma signé yi xam nga doo ko ci bàyyi. kon moom loolu muy def c'est un très mauvais exemple. mais demande demande de euh, levée de du contrôle judiciaire yi mu def aussi. Euh, justice mel ni ku ko tanqam tànqamlu wala ku koy rejeté souvent est-ce que ça n'explique pas un peu aussi attitude boobu nga xam ne adopté na ko. moom moo mujjee am contrôle judiciaire ab hmm. Ablaye Balde moo ko njëkkaam ma ngay signé ñun am nañ ko ñu ngay signé keneen am na ko ma ngay signé moom mooy kan. Hmm. moom si ñu ko mujjee am la bokk moom bosam matagul ñaari at sax mais ñun suñu bos ëpp na ñetti am na ñu am juróomi at ñu ngi signé yi donc moom moomul ñun ñi daf ñu gën ñun ñuy signé ji toujours. d'accord moom ñun ñi. d'accord alors ñu revenir un peu ci euh, décision conseil constitutionnel bi balaa ñuy jàll ci leneen.